Mary Teuw Niane bokk na ci candidat yi ñu recalé yi nga xam ne demuñu ci audience bi nga xam ne njiitu réew mi Macky Sall mayoon na leen ko moom jàpp na ne boobu leen daje ajootu ko ndax dogal bi bàyyee ko ci conseil constitutionnel jëm ci liste définitive candidat yi xam na ne mënatuñu cee def benn recours. waaw xam nga bu ñuy def lettre boobu suñu yaakaar moo doon président de la république tontu euh, lettre bi wala dalal ñu balay. conseil constitutionnel di jël ndogalam parce que ñëpp xam nañu su conseil constitutionnel euh, dogalee dara dootu ci mën a soppeeku te jamono ji xam ngeen ni wax ji bari trop ci mbiru rapport ak yu mel noonu man duma ma ànd tey ak ëllëg ci ñu euh, toxal élection yi njiitub mouvement pour la transformation nationale dafa dal di jël dogal nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko ginnaaw bi nga xamee ne conseil constitutionnel dañoo dal di dàqandi candidature am. ñun suñu ñaari programme yi am na poñ yu baree bare mun naa wax ni ñun ñoo ko bokk bon looloo tax yombal ñu dem fekki coalition LACOS muy coalition Ousmane Sonko te tamit ñu ne candidat bi Ousmane Sonko wax ni mooy candidat kooku la ñuy jàppale. naam jiixi jaaxa bari na ci présidentielle bi ñu jëm ci février 2024 waaye Mary ñaan moom ne biir na ko ne choix baax na dem na sax ba di ci yokk ne gëm na bu baax a baax ñu am ndam ci premier tour yi.